juróom fukk ak juróom ñaar yonent yàlla dañeel asalaamaaleykum mbokki déglukat yi mu leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub wi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu gëstu woon nañu ci téereb yonent yàlla Yeremi mi jiitoo almasi bi lu toll ci juróom benn téeméeri at gisoon nañu ni Yeremi arto woon mbokki yow tam yi ne leen suñu tuubul seeni bàkkaar te wañu ko ci yàlla kaaraangeek réewum babilon dinañu tas dëkku yerusalem te jàpp leen ni jaam waaye lu ëpp ci yawut yi faalewuñu woon waareb yeremi naka noonu jàngoon nanu ni kaaraangeek babilon ñëwe yàq yerusalem te jàpp yawut ya yóbbu leen fu sore ca babilon lépp xewoon na tembe ni ko yàlla waxe woon jaarale ko ci gémmiñu yeremi yonentam waaye yàquk yerusalem taxul woon yàlla bërgël yawut yi di xeet wi mu tànnoon bu yàgg yàlla mënul woon a fàtte kóllëre gi mu fasoon ak ibrahima ak isaaxa ak yankoba bi mu leen naan xeeti àddina yépp dinañu barkelu ci yéen yàlla fàttewul woon pexe mi mu rabatoon ngir jaarale musalkatu àddina si ci xeetu yawut yi soqi ko ci ibrahima naka noonu mbind mi tey nettali ni yàlla toppatoo woon yawut ya ca babilon diirub juróom fukki at ba keram mu leen delloo yerusalem ni mu ko diggee woon waaye nag ngir dégg nettali boobu faaw ngeen muñ ba émission bi ñëw tey ji nag danu fas yéene jàng ci mbirum benn waxambaane wu yawut bu bokkoon ci ñi yóbbu babilon waxambaane woowu mooy dañel yonent yàlla dañel tur dañel mu ngi tekki yàlla mooy sama àttekat loolu moo doon seede dañel ci tënk dañel ragalul woon kenn ku dul yàlla mi nara àtte àddina si dañel faalewul woon li nit di xalaat ci moom xalaati yàlla rekk a amoon solo ci moom dañel gëmoon na li yonent yàlla suleymaan bindoon bu yàgg naan ragal nit ñi fiir la wante ki wekk yaakaaram ci aji sax ji kooku ku aaru la ñi miin mbindi yonent yi xam nañu ne dañel yonent yàlla dëgg la woon ndaxte téere bu xóot bi mu bindoon dafa ëmb ay dëgg yu xelum nit mënula sos yonent yàlla dañel bindoon na lu bare ci mbiri nettali xeeti àddina si laata xeet yooyu di doon am sax ci misaal dañel bindoon na ni nguuri perse ak grèce ak rom naroon a ame ak li ñu naroon a def te mu bind ko ay téeméeri at laata lu ëpp ci xeet yooyu doon am sax te it ni yonent yàlla yépp dañeel moom itam waxoon na ci mbirum almasi bi naroona ñëw waaye ndegam jot gi nu am tey may nunu dugg ci xalaati yàlla yi gën a xóot yi téereb dañeel ëmb nu yem ci gëstu tuuti ci nettali yonent yàlla dañeel moom ci boppam ci sar wu jëkk wi nag danu ciy gis ni nebukadnasor buuru babilon tànne woon ci biir waxambaane yawut yi ay waxambaane yu góore yow te jekk ci bépp xam-xam ak njàng te am xel ngir jàng araf yi ak làkk waa babilon ngir mën a liggéey ci nguur gi dañeel bokkoon na ci waxambaane yooyu buur bi tànnoon noonu la dañeel tàmbale woon di jàng ci lekkooli babilon waaye ci bés bu jëkk ba sax dañeel daje woon na ak ab jafe-jafe jafe-jafe bi moo doon buur babilon gu rëy gi dafa dogaloon ne waxambaane yooyu bokk ci lekkoolam war nañuy naan biiñ tey lekk ñam wi ñuy jagleel xërëm yi ndax dañeel mënoon na bokk ci màggalu xërëm yooyu mukk lu tax ndaxte dañeel ragaloon na yàlla dee moo gënaloon dañeel def lu neexul yàlla boroomam noonu mbind mi nee dañeel nag jàpp ci xolam ne du gàkkal boppam ci ñami buur ak biiñ bi buur di naan te mu ñaan njiitu jawriñ ja ngir mu bañ ko fitnaal ci muy gàkkal boppam naka noonu mbind mi day nettali ni yàlla xettale woon dañel ci jafe-jafe boobu barkel ko may ko xàmme ak xel ba tax mbind mi ne noonu dañel tàbbi ci liggéeyu buur te ci mbir yépp yi laaj xam-xam ak xel te buur bi seetlu leen ci mu gis dañel raw fukki yoon tariyaax yi ak xërëmkati réewam naka noonu daanaka diirub euh, juróom ñaar fukki at dañel doon na liggéeyal buuru babilon yi te yàlla ànd ak moom léegi nag ci jot gi nu dese tey bëgg nanu seet beneen nettali ci mbirum dañel nettali boo xam ne day wone ni dañel ragalewul woon kenn ku dul yàlla dong dinanu gis ni dañel wuute woon lool ak yeneen jawriñ yi doon liggéeyal buur bi ñoom dañuy wey ci benn dëgg gi te di jiital alal di jot ay neexal ndaxte ragal yàlla sore na seen xol waaye dañeel moom bañoon na lépp lu jubat yi ndaxte ragal yàlla fees na xolam fanaan ci kàmb gaynde moo ko gënaloon bañ a neex yàlla bala nuy dugg ci nettalib dañeel ak gaynde yi war ngeen jëkk a xam ne fi nu toll léegi ci nettali dañal nguuru babilon tuddatul woon babilon waaye perse ndaxte ñaari xeet maanaam waa medd ak waa perse ñoo nootoon nguuruk babilon te séddale ko ñaar léegi dañet màggat la woon kon ci saar juróom benn mbind mi neena darius buur bi gis ne jekk na mu fal ci nguur gi téeméeri kàngam ak ñaar fukk ñu tas ci biir nguur gépp mu fal ci kaw kàngam yi ñetti jawriñ yu rëy te kàngam yi wekku ci ñoom ngir buur bi bañ yàqule dara te dañal bokk ci ñetti ñooñu dañal nag ci boppam raw yeneen jawriñ yi ak kàngam yi ndaxte àndoon na ak xel mu xóot te buur di ko xalaat te fal ci nguur gépp noonu jawriñ ji ak kàngam yi di wut yoon wu ñu tuumaale dañel ci lu jëm ci mbiri nguur gi waaye mënuñu gis wenn yoon mbaa genn njuumte ndaxte dafa tàkku te gisuñu ci moom genn tooñ wala genn jubadi bi loolu amee góor ñooñu ne dunu gis dara lu nu koy tuumaale sunu ko seetul ci yoonu yàllaam gannaaw loolu yeneen jawriñ yi ak kàngam yi gaaw dem ca kër buur ne ko buur darius na saw fan gudd jawriñu nguur gi laman yi kàngam yi farba yi ak jaraaf yi bi ñu bokkee dajaloo mànkoo nañu ngir buur bi àtte dogal te ñu dëggal téere bi li fekk fanweeri fan képp ku jagleel ay ñaan jenn yàlla wala kenn nit ndara yow buur dinañu ko sànni ci kàmbu gaynde yi léegi nag ku tedd ki dogalal téere bii te bind ko ngir du tebeeku ni ci yoonu medd yi ak pers yi kenn mënula tebbi ci kaw loolu Darius bind àtte bi ak dogal bi bi Daniel xamee ne dogal nañu àtte bi mu ñibbi te yéeg ca néeg bu kawe ba te palanteer yey ubbeeku jëm Yerusalem noonu ñetti yoon bés bu nekk muy sukk di ñaan ak di sant yàlla ni mu ko daan defe ca bu jëkk noonu góor ñooñu ne milip dugg te ñu fekk dañel muy ñaan ak a dagaan yàllaam gannaaw ga ñu dem fekki buur te fàttali ko àtte bi mu dogal naan ndax binduloo téere bi wax ne li fekk fanweeri fan képp ku jagleel ay ñaan jenn yàlla mbaa kenn nit ndara yow buur dinañu ko sànni ci kàmbu gaynde buur bi jël kàddu gi tontu ne mbir moomu dëggu na sukkandiku ci yoonu medd yi ak perse yi kenn mënula tebbi ñu ne buur dañel di kenn ci ñi ñu lële woon yuda céy ku tedd ki kooku de la yow ak dogal bi nga bind te mu ngi def ay ñaan ñetti yoon bés bu nekk bi mu déggee loolu buur bi am tiis wu rëy te mu jàpp xettali dañel ci xolam te ba bii jant bi so mu di ko fexe musal waaye góor ñooñu ànd dellusi ca wetu buur te ne ko ku tedd ki buur xamal ne ci yoonu medd yi ak persi yi wareef la ci bépp àtte mbaa ndigal lu buur bi dogal desetu ko mëna a tebbi noonu buur bi santaane ñu indi dañel te sànni ko ci kàmbu gaynde yi buur bi jël kàddu gi te ne dañel na sa yàlla musal moom mi ngay jaamu ak takk gu mat ñu indi aw doj te teg ko ca buntu kàmb ga buur bi def ca màndarga ak jaaroom ak jaaro bu ay jaraafam ngir ñu bañ a soppi dara ci ni dañal nekke lu ca tegu buur bi dellu ci këram bañ a lekk guddi gépp bañ bépp bànneex te mu fanaane noonu xoole bi fajar di xar buur bi jóg dal di gaaw dem ca kàmb gaynde ya bi muy jub kàmb ga mu woo dañal ak baat bu tiis buur bi ne ko yow dañal jaamu yàlla ji dund te nga di ko jaamu ak takk gu mat ndax sa yàlla xettali na la ci gaynde yi te dañal di wax ak buur bi buur na saw fan gudd sama yàlla yebal na malaakaam te tëj na gémmiñu gaynde yi ba defuñu ma dara ndaxte fekkuñu ci man genn tooñ fa kanamam te set naa ci sa kanam céy ku tedd ki buur defuma dara noonu buur bi am mbég mu rëy te mu joxe ndigal ñu génne dañal kàmb gi bi mu ko waxee ñu jukkee dañal ci kàmb gi te gisuñu ci moom benn gaañu gaañu ndaxte amoon na kóolute ci yàllaam buur bi joxe ndigal nag ñu indi góor ñooñu tuumaaloon dañal te ñu sànni leen ci kàmbu gaynde yi ñoom seeni doom ak seeni jabar te laata ñuy àgg sax ca taatu kàmb ga gaynde yi daanu ci seen kaw te ñu dammate seen yax yépp gannaaw loolu buur darius bind mbooloo yépp xeet yépp ak waaso yépp yi dëkk ci kaw suuf ne na jàmm ju yaatu ànd ak yéen maa ngi joxe ndigal ci sama dendu nguur gépp ne nañu ragal te am wegeel ci kanam yàllay dañel ndaxte mooy yàlla ji dund te moo sax faw nguuram du toxu mukk kilifteefam di wéy ba ca mujj ga moom mooy musal ak di xettali di def ay kéemaan ak ay jaloore ci asamaan yi ak ci kaw suuf si moom moo musal dañel ci wewu gaynde yi amin ndax dégg ngeen li buuru yéeféer bi waxoon gannaaw ba mu gisee ni yàlla musale dañel ci gaynde yi mu ne maa ngiy joxe ndigal ci sama déndu nguur gépp ne nañu ragal yàllay dañel ndaxte mooy yàlla ji dund te moo sax faaw yow miy déglu tey ndax ragal nga yàllay dañel xëy na yaa ngi laajte naan kan mooy yàllay dañel kon xamal ne yàllay dañel mooy yàlla mooy yàlla aji dund ji dëggu ji yàllay dañel mooy yàllay ibrahima isaaxa ak yanqoba yàllay dañel mooy yàllay muusa ak daawuda yàllay dañel mooy yàlla mi nu jottali mbind mu sel mi mooy yàlla mi dige woon wàcce ab ramukat ngir musal bàkkaarkat yi ci doole ji raw doole yi gaynde yi maanaam ci dooley seytaane ak bàkkaar ak safara su dul fay mukk yàllay dañeel mooy jenn yàlla ji am kepp ndax ragal nga yàllay dañeel laaju nu la ndax ragal nga say xarit ak seeni xalaat wala ndax ragal nga say maam ak seeni aada mbaa ndax ragal nga say njiit ak seeni sart diine li nu lay laaj mooy ndax ragal nga yàlla ndax ragal nga yàlla aji sax ji ak kàddoom gu sell gi Daniel moom ragaloon na yàlla ba tax mënul woon a ragal nit ragaloon na yàlla ba taxoon mu sopp njub te bañ lu bon Daniel ragaloon na yàlla ba taxoon fanaan ci kàmbu gaynde moo ko gënaloon fuuf weddi yàlla aji sax ji yow nag ndax ragal nga yàlla ndax ragal nga ko ni ko dañal ragale woon ndax bañ nga lu jubadi ni ko dañal bañe woon ndax fonk nga kàddug yàlla ni ko dañal fonke woon wala boog danga mel ni ñi ëpp ci doomu aadama yi ñiy benn dëgg gi tey jiital xaalis di sàggane mbind mu sell mi ndax ragal nga yàlla aji sax ji jërë ngeen jëf ci déglu bi su fekkee ne am na dara lu leerul ci seen xel ci li nu jàng tey bind nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 saint yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddu yàlla wax bi mu naan ragal nit ñi fiir la waaye ki wekk yaakaaram ci aji sax ji kooku ku aaru la